xibaar yi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu dal leen jàmm ci seen xibaar yi ci kàllaamay kocc ci seen télévision Al Mouridiyyah TV li gën a fës ci boppu xibaar yi tey alarba yemoo ko ñaar fukki fan benn ci weeru mai moom mooy nguurum Sénégal jagleel na fukki projet ay gëstukat ñu xayma ko nag ci téeméer ak juróom-ñetti fukki eh, millions eh, jëwriñ bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum njàngum kawe bi ak gëstu eh, nit ki tey ci li ngi di àllarba bi Mary Teuw moo ngi ko doon jox kon ñi nga xam ne ñoom lañ dénk projet yooyu ñaax na leen tamit li nga xam ne moom mooy alal boobu ñu leen di jox te alalu ñëpp la ñu jëfandikoo ko daal loo xam ne lii di ëllëg di nañ ci jëlee njëriñ ci li nga xam ne moom mooy réewum Sénégal Euh, ca bitim réew foofu moom jàpp leen ne ca réew ma Nigéria li nga xam ne moom mooy tiis bu métti moo dal seen euh, kaw tey ginnaaw bi nga xamee ne am na ñaari attentat yu métti yu fa am euh, ci diggu réew ma lu ëpp nag téeméeri nit jot nañoo ñàkk ci ñaari attentat yooyu kon lii mooy li fi gën a fës tey ci bopp xibaar yi soo leen taaxirloo tuuti rek ñu ñëw ak yéen ci faramfàcce bi ni ñu ko waxee rek ci bopp xibaar bi lañ koy dooree ak euh, lu ëpp nag téeméer ak juróom-ñetti fi ku million loolooy koppar bi nga xam ne nag gouvernement bu Sénégal jagleel na ko ay gëstukat ñu xayma leen ci fukki nit ñoo xam ne nag ay projet lañ yore woon ci ndorteel ma nag juróom-ñeent fukki lañ woon ak ñeent waaye rek euh, fukk lañ ci mujjee euh, tànn tey ci suba nag jëwriñ bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum lii di enseignement supérieur di njàngu mu ak gëstu bi di Mary Teuw Niane moo ngi leen doon jagleel li nga xam ne kon moom mooy seeni koppar waaye ñaax na leen tamit koppar boobu nga xam ne alalu ñëpp la ñu jox leen ko nañ ko jëfandikoo daal loo xam ne ëllëg Sénégal dina ci gis njëriñam ñu ànd ceeg leeral gi ak Abdoulaye sañaan kon xam naa dañuy dellu si waat rek ci élément boobu comme ni ñu ko waxee woon léegi rek ci li nga xam ne moom mooy kon xam naa su fekkee jekkandi na ñu ñëwaat ci euh, niñ ko doon waxee sànq rek lu ëpp téeméer ak juróom fukki millions moom mooy koppar bi nga xam ne nguurum Sénégal jagleel na ko ay gëstukat ñu xayma leen nag ci fukk waaye ca ndorteel ba juróom fukk ñeent ñoo déposé woon i projet kon fukk yooyu rek lañ mujjee jël euh, jëwriñ bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum njàng mu kaw ak gëstu bi di Mary Teuw Niane tey ci suba kon la leen doon jagleel li nga xam ne moom mooy koppar yooyu ñaax na leen nag ñoom fukki nit ñooñu ñu jëfandikoo daal li nga xam ne moom mooy koppar yooyu ci ngir ëllëg nag euh, nguurum Sénégal ngir ëllëg sax askanu Sénégal mun ci gis ay njëriñam ndax euh, euh, koppar yi leen jox daal alalu mbooloo la alalu ñëpp la dañ ci ànd rek ak Abdoulaye saañaan gouvernement gu Sénégal jagleel na gëstukat yi lu toll ci cent quatre-vingts millions mu jëm ci ay buntu liggéey yoo xam ne jublu nañu ko taxawal mu dëppoog fànn yoo xam ne bokk na ci li gën a ñor nguur gi. loolu ministre bi nga xam ne moo yor wàllu njàng mu kawe mi ak wàllu gëstu di Mary Teuw Niane moo ko xamle tey jii ci àllarba ji. koppar yooyu nga xam ne génne nañu ko mu jëm ci lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu suqali ak gën a dooleel lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu gëstu ak xam-xam toll na ci cent quatre-vingts millions cent quatorze mille trois cent soixante-dix francs ngir financer fukki projet yoo xam ne tànn nañu ko ministre bi xam la na ni juróom-ñeent fukk ak ñeent ci ay projet jot nañu ko mu jëm ci juróom-ñaari fànn yoo xam ne bokk na ci wàllu agriculture di lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu mbéy ci càmm ak napp gi ci sàmm ak aar dund gi ci wér yaram yaram wàllu santé ak wàllu koom-koom ministre bi di Mary Teuw Niane feddali na ñi nga xam ne ñoom lañu jagleel koppar yooyu gis-gis bi nga xamante ne njiital réew mi am na ko di président de la république ak gouvernement bi ci xam ne xam-xam ak gëstu ci la ñu war a sukkandiku ngir yokkute am ci réew mi koppar yooyu ñu financé nag dana jàppale bu baax projet yi nga xam ne dafa jëm ci wàllu gëstu tey am jeexital ci wàllu koom-koom ministre bi soññ na ba tey ñi nga xam ne ñoom la ñu jagleel financement yooyu ñu war ko jëfandikoo ci anam yoo xam ne dana tegu ci yoon ngir njëriñal ñëpp jërëjëf Abdoulaye Sagnane ñu desandi ba léegi sax ci njàngu mu kawe moomu jàppale Sénégal euh, am na nag lii di ñaari centre d' excellence universitaire appliqué euh, ñi ko fas yéene financé nag nguurum Sénégal lëkkaloo ci ak euh, banque mondiale banque mondiale moom fas yéene ci indi li nga xam ne moom mooy ñeenti milliards loolu sax jëwriñ bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum njàngu mu kawe mi di Mary Teuw Niane moo ko fësal nikki tey ci àllarba ji benn centre bi nag moo ngi nekk université Cheikh Anta bu Dakar li ñu fa fas yéene jàngale moom mooy wérgu yaramu lii di soxna yi yi wérgu yaram njaboot gi ak li nga xam ne moom mooy tuut tànk yi beneen bi nag fas yéene a nekk ca université Gaston Berger li ñu fay jàngale nag moom mooy ay mathématiques waaye tamit xarale yu bees yi di technologie de l'information et de la communication ñu desandi sax ba léegi ak ki nga xam ne moom mooy jëwriñ bii di Mary Teuw Niane moom lañ dénk wàllum enseignement supérieur ak wàllum gëstu de recherche ni ki tey ci ngoon moo ngi doon daje ak taskatu xibaar yi ca Ndakaar li ñu doon waxtaanee nag moom moo soxal mbirum bourse étudiants yi waaye tamit inscription ñi nga xam ne ñoo ngi door a am baccalauréat ak lu jëm ci situation campus université publique yi ndaje boobu ak taskatu xibaar yi dinañ si ñëwaat si suñuy yeneen xibaar ak suñuy ndaw yi ñu nekkal foofu ca Al Mouridiyyah Dakar ñu àddu bi yoon wax tey ci li nga xam ne moom mooy euh, ñaar fukki fan ak benn ci weeru mais di bëccëg bi nga xam ne àdduna wërngal këpp day màggal lii di wàllum diversité culturelle wàllum kon aada ak euh, cosaan leeral gi dañ ciy ànd ak euh, Mourtala Sey. Assemblée générale Nations Unies jàpp gi mu jàpp ñaar fukki fan ak benn ci weeru mai ngir def ko journée nationale boo xam ne. mboolem aada yi ak askan yi dañuy daje ci waxtaan jubloom du woon lenn lu dul bëgg àdduna goo xam ne dañ ci dund dund gu teey gu am jàmm sëru jublu nag mooy aada yi ak cosaan yi dajee yi ñu dajee di waxtaan dana tax kenn ku nekk xam moromam xam googu nag li mu koy jural mooy mu mën koo respecté ca lam gëm respecté ko ca lam jàpp kenn ku nekk xam sa morom ngir ñu mën a ànd dund dund gu dal goo xam ne kenn koo xam ne dana jëf loo xam ne day lor sa morom du am gis nañ nit loolu tukki bi nga xam ne mi nga am nit ñi di bàyyi ko gox yu nekk jaxasoo moo waral kenn ku nekk war a xam sa morom na ngay dundee na nekkee ak na nga mel fi ñuy toll nag autorité publique yi seen yitte jëpp jëm na ci wàllu woowu ngir waxtaan mën a am diggante culture yi diggante civilisation yi ndax loolu dana dëgëral jàmm gi dana dëgëral nekkin wi dana tax tamit ci àddina gi yëpp ñu mën a ànd dund dund goo xam ne gu dal lay doon li ñu doon wax choc de civilisation jàpp ne aada yi ak askan yi fa ñu mujjee mooy di xeex ak di boddante jàpp nañ ne dialogue bi su amee loolu du amati ñu àddu bi yoon wax ci li nga xam ne moom mooy fukk ak euh, benn ay société kon jógee bitim réew di société international ñoom nag ci li ñuy gëstu rek moom mooy di seet ci suuf si wala si si ndax pétrole moo ngi foofu gis nañ ne nag euh, weer yëpp ñoo ngi yëngatu fii ci biir réewum euh, Sénégal ginnaaw bi nga xamee ne am na ay bërëb yoo xam ne nguurum Sénégal bi moo leen ko jagleel ngir ñu gëstu xool ndax réew mii di Sénégal am na pétrole kon ba jamono ji daal ñoo ngi ciy liggéey te liggéey gi sori na bu baax suñu sukkandikoo nag ci jëwriñ bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum ci Sénégal di may Maimouna Ndoye Seck moo ko jibal euh, niki euh, tey ci alarba ji euh, ñu àddu wax ci wàllum commu lii di comité de passage ci wàllum analogie jëm kon ci li nga xam ne moom mooy wàllum numérique démb ñoo ngi doon daje ci chambre de commerce bu Dakar ñu doon waxtaanee nag jafe-jafe daal yi nga xam ne nemmeeku nañ ko jóge daal ci wàllum analogie ak jëm ci li nga xam ne moom mooy wàllum numérique leeral gi rek dañ ciy ànd ak suñu ndaw li ñu nekkal ca Dakar di soxna Diarra Seck ànd ceeg Ahmed fii ci Sénégal langub taskatu xibaar yi ak seen jumtukaay yi ñu dégtalee moo xam télévision la wala rajo waxtu wu ne ña ngay dox jëm ca kanam yokk ci ab lim war a jàkkaarloo ak fii jumtukaay yi xarala yi toll. xarala yu bees yi nga xamante ni moom la ñuy woowee numérique te télévision war a dox jëm ca moo waral kuréel gi saytu dox boobee woote ndajem diisoo ak sottante xalaat jëm ci tolloole gis-gis yi ak yokk dégg-dégg bi ci mbooleem askan wi. Euh, euh, chambre de commerce du Dakar président ñaa sabablu ko moo organisé euh, waxtaan wi ngir ñu mën a gindi askanu Sénégal ak askanu liggéeykatu borom entreprise yi nekk ci région du Cap-Vert ci lii ñu jëbul jëm mu di passage analogique bi ci numérique maanaam. télévision yu nga xam ne ni ñu doon doxalee télévision ñu war cee jógee jublu ci beneen façon mu defar télévision mu di télévision numérique boo xam ne bii danañ mën a jógee ci fukki télévision ak juróom-ñaar dem ba ci juróom-ñetti ñetti fukki télévision suñu neexee. bu ñu yem rek ci jóge ci télévision analogique dem ci télévision numérique nañu fexe ba euh, mu mën a doon aussi loo xam ne lii dañuy dimbali ci ñu mën a créer ay liggéey yu baree baree baree bare créer tamit ay euh, euh, service yu bëree baree baree ba nit ñi nga xam ne ñi bëgg nañoo créer télévision yu bees mën cee jot ñi nga xam ne ñi amoon nañ ay télévision yi tamit mbir mi wàññeeku lool ci ñoom chart ñuy tëral te mu dogal tàmbalit numérique boobee fii ak 2015 moo waral kuréel googee ñu duppee kontaan def seen yitte jëpp jëmale ko ci liggéey buy tax jàll ci seetaan télévision ndajem tey mii ak la fa ruusee ci ay xalaat ak xam-xam tax lenn ci askan wi am dalu xel ci ne projet boobee dina am ni ñu ko bëggee donte lenn ci waa réew mi mbir mi nekk na ab lënt ci seen jërëjëf kon euh, dakaar moomu la ñuy jógee rek euh, dem ca bitim réew soo leen taaxirloo tuuti ñu indi leen li fa jot a xew bitim réew liñ koy dooree rek moom mooy réewum Nigéria euh, wala réewum Égypte kon xam naa lañ koy tijjee ak ki fa nekkoon euh, njiitum réew euh, di Hosni Moubarak moom kon ñu jot ko tëj li nga xam ne moom mooy diirum ñetti at moom nag liñ koy toppee rek moom mooy mbirum guerre ay doomam tamit tëj nañ leen diirum ñeenti at ñoom tamit guerre boobu lañ leen di toppee mu barak ak ay doomam nag liñ leen di tuumal moom mooy biñ nekkee ci bopp réew ma daal lu ëpp fukki milliards ci suñuy koppar dañ ko luubal ginnaaw bi nga xamee ne bokkoon na ci budget palais présidentielle Hosni Moubarak ba léegi sax war nañ ko jugé waat ci beneen procès bi yoon dañ koy topp daal ne dafa faat ay nit ginnaaw bi nga xamee ne moo nekkoon ci bopp réew ma euh, ci révolte yi nga xam ne amoon na ci 2011 atte boobu nag su fekkee teg nañ ko ay daan euh, lii di euh, diirum dundam wala sax dañ koy faataale ndax lii di peine de mort kon moo fas yéene lalu ci loosam ci Égypte lañuy ñuy kon dem ba fële ca réew ma Nigéria bi yoon Nigéria nag ñu fàttali li nga xam ne kon moom mooy euh, tiis euh, moo fa xew euh, ni ki daal tey ci suba si ginnaaw bi nga xamee ne am na ñaari attentat yu métti yoo xam ne am na fa ba lu ëpp nag téeméeri nit ak fukk ak juróom-ñett jot caafaatu faatu benn camion nag moo jékki-jékki rek kalaate ci jox gox bi ñuy wax Zos nekk ca digg réew ma ñu tegaat si rek fanweeri minute wala ñaar fukki minute beneen kon kalaate ñu nemmeeku ko bi yoon ci benn minibus kon daal téeméer ak ñaar euh, ba téeméer ak fukk ak juróom-ñetti nit jot caa ñàkk seen bakkan waaye nag euh, ba jamono ji nag ñuy àddu di wax euh, xamuñu daal ñan ñoo amal li nga xam ne moom mooy attentat yooyu nga xam ne kon xew na ca réewum Nigéria ki tey ci suba si. ñu jógee fële ca Nigéria jeexalee ko ak réewum Thaïlande foofu nag ku jéga moo ngi wéy ba léegi eh, di jaamarloo ak daal takk derrière ginnaaw bi nga xamee ne démb l'armée bi dafa décréter loi martiale ñoom nag eh, ñi féete ku jéga li ñu bëgg rek moom mooy eh, ñu taxawal daal benn lii di premier ministre kon ñu tabb benn premier ministre bu bees boo xam ne daal du far fenn loolu nag ñoom loolu lañ bëggu ginnaaw bi nga xamee ne ki fa nekkoon premier ministre di Shinawatra tekki woon euh, ndombol euh, tànkam euh, kon ku jege noonu di wane daal seen ñàkk ànd ak lu armée ba teg loxo li nga xam ne moom mooy boppu réew ma armée boobu sax fës lool ci li nga xam ne moom mooy capitalu réew ma di Bangkok ñu gis ne daal ay soldats ak li nga xam ne moom mooy ay militaires la l'armée bi kon déployé ngir daal artu bépp manifester boo xam ne daal bëgg yëngal foofu lii di dëkk ba foofu ci li nga xam ne moom mooy capital ba di Bangkok kon lii moo nekkoon xibaar yi nga xam xam ne jëlal nañ leen ko ca bitim réew Euh, kon euh, fii la ñu fas yéene ndar keppe li nga xam ne moom mooy xibaaru ngoon yi ñu leen di jaajëfal ci ànd bi ngeen doon ànd ak seen télévision Almouridiya TV euh, bu juróom-ñetti waxtu jotee ci kàllaamay français di ngeen am Jibril Ndaw moo fas yéene kon ñëw indi leen xibaar yi ci kàllaamay français man ma leen di jaajëfal ci ànd bi ngeen doon ànd ak seen télévision Almouridiya TV di leen jox dig daje ëllëg bu soobee suñu borom ñu fanaan ak jàmm. xibaar yi.